ndigal bàyyikoo na ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér wàcc si ci kër waajuram wi waaye mu fekk fi rakkam di jëwriñam di sëriñ Sidi Mbàkke moom Cheikh Abdoul Ahad na ko fi yàlla yàggal te ak wéram mu ànd ak mbooleem njabootuk Cheikh Abdoul Ahad gépp di fàttaliwaat bokki jullit yi ak bokki taalibe yi bis boo xam ne bisu njariñ la bisub tawfeex la bis buñ mën a amee ngërëmul yàlla la muy ñaar fukki fan ak ñett ci weeru kori wii depo ak juróom-ñaari fan ci wéru tubab muy bis bi nga xamné ci la jàmbaari l'islam je feeñoon jamono serigne touba khadim rasoul waxon ci waxam ju rëy ja wax ne bisa ngi nii boo xam ku ci feñ doto nëbbu te kuma ko teralal doto tangok dogo doto tagok teraanga bis bobu nak mo deug malat motax serigne Sidi mbake mom Cheikh Abdoul Ahad ànd ak rakam yëpp tok fi ci ndigalul serigne touba Cheikh Mahamadul Muntaxa fas yéene yëkkati ay kaddu fatali wat bokki julidi fatali wat bokki talibi jambar jàmbaar ja nga xamne mo moo ne ku gont ngont mu guddi te bëgg a dab ña xëyoon nopp lu waratu la doxiinu ku dem ma dem ku demul ma dem rek ngay doxee waxit ne li feeg maa ngi nekk ci kaw suuf Serigne Touba rek laa fas yéenee nekkal dellu waxaat ne ku liggéeyal Serigne Touba ku mën a doon murit yàlla war a fay jàmbaar jooju nag kenn nattalu na liggéeyal na Serigne Touba kon jurul yëpp ñoo mën a waase fay Cheikh Abdoul Ahad ci bisam bi nga xam ne mooy dëgmal war a doon gaawu ñaar fukki fan ak ñett ci weer weeru wolof dëppoo ak juróom-ñaari fan ci weeru tubaab sëriñ bi nag nee na leen ko waye yalla mo digle fàttali ndax mo ni wa sakir fa inna sikratan fa famul mu'minin yalla bam diglé diglee li tam da ca am ñu mu tuddu ño xani dañuy bëgg ñu di leen fàttalikoo ci seeni jiko ak seeni jëf yi rafet ndax bo rewé ci Seydina Ibrahima dañuy waskur fil kitabi Ibrahima innahu kana sidiqan nabiyyan mu waskur fil kitabi Moussa innahu kaana muxlisan waskur fil kitaabi idrisa innahu kaana sadiqal wa'd moo tax sëriñ bi ne kon nag sunu jàmbaar jee nuyu itam dañuy am lu ñu koy mën a fàttalikoo te sukkandikoo ko ci lii yàlla wax muy Cheikh Abdoul Ahad moomee mën nañ koo fàttaliku ci ñett ca dëggu ga ak bëgg ga sëriñ Touba ak taalibe ga moo tax sëriñ bi ne kon bis bi mi ngi leen koy yëgal nu bokk ci maase fàttaliku ko noonu ko suñu borom waxe ndax su suñu borom diggee ci ñë ñee ñuy fàttaliku mu def mu defal nu ko ci sunu jàmbaar ji kon nu jàpp bis bi te fas ko yéene euh, sellal góorgóorlu ca ànd ca ak ndax lu ca waaye def kat te sellal ko Pastef ko danga ko am incha allah wala boo ko amul rek yaa war a seetaat sa bopp. sëriñ bi mu ni mi ngi koy yëgal xalif général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké di ko yëgal njabootu sëriñ Touba gépp day dal ci waa kër sëñ Modou Moustapha ba ci kër sëñ Mourtada ñëpp ñoo nga xam ne ñii rek euh, waa kër sëñ Touba gi la. sëriñ bi nee na mooy jëw liñ ji yii ci kër gi waaye ñoo moom ñoom ñëpp ñoo ci jëm ci kër gi liñ ci am ñoom ñëpp la ko bokk yéene bëgg yàlla sunu borom ak suñ Tuubaa boole nu ko defal nu ko mi ngi koy yëgal itam euh, bokki lislaam yi ñi aju ci Tiwaawoon ak bokki turux yeneen yi ci des yëpp euh, lim euh, bàyyiwun kenn daal di ko yëgal itam njiital réew mi président Macky Sall ak premier ministre am Abdoulaye Dione ak seeni jaraaf muy ministre yi yaay ji ñoom ñëpp di ko yëgal itam ñi nga xam ni dañoo aju ji ñoom ministre yooyu muy ay ay directeurs nationaux ba wàcc ci ba ci régions yi ci gouverneur yi ak inspecteurs régionaux yi ba wàcc si ba ci département bi ci préfet bi ci chef secteur départemental yi sëriñ bi bàyyiwul kenn kenn kenn nee na mi ngi koy yëgal ñépp te bëgg lépp loo nga xam ni lii lu baax li ciy bàyyikoo la ñëpp la ko yéene bu sañoon kenn ku ci nekk nga sàkku ko te boo ko sàkkoo da ko am incha allahu ñu ngi woo ñi nga xam ne ñooy jàngkat alxuraan yi ak jàngalekat alxuraan te jiital ci sëñ maam moor mi nga xam ne mooy doomi sëñ Fallu te ñu féetale ko wàllu njàngum alxuraan mépp jiital ko ci bëgg nañ kaamil yi ñu fas yéene ci jàngoon luñ man ak luñ mënul ci defal lu yàlla addi seen laat seen laat ko jàngal alxuraan wàcc na ndax ñun xamu ni lenn lu mu bëgg loolu alxuraan ak seen tubaab te itam waaw lu ngeen ko ci defal dana àgg ci moom te dana rëy fi moom tam kon nag ñu ngi ñaan sëñ bi itam yàgg noo jiite yàgg noo jox ndigal yàgg noo liggéeyloo ci lii mm-hmm. te ñu man ko na ko bëggee bu nee bis bee tax ndax la sëriñ bi dëxaloon ci Cheikh Abdou Lahad ci bis bii la ko dëxalu la ko waxoon mooy bis ba am nga ne mu ne woon moom mi am naa ci moom yaakaar te nañ ma ko nañ ma ko nañ ko teralal teral nga jooje moo fi jógul ba tey jii ci bis tey loola nag sëriñ bi xam gum xam loola moo tax muy muy muy yaatal ko ci woote bëgg teraanga jooju ñëpp mu ànd kook ñoom ndax na ko sëriñ bi barkeele barke booba kenn ku ne mu mën a agsi ci ndax kat bu agsee ci yow sa mbiri adduna ak sa mbiri àllaaxira lépp ci lay baaxe te sëriñ bi loolu rek la loolu rek yéene ñun ñëpp loolu moo tax mu yeesalaat euh, woote bi ni ko sëriñ jii li waxee ci alxuraan ji ak amatuñ li koy dal lépp leer na nañ sëriñ seex it ni mu ko tënke ci bu jëm ci président loolu leer na leer na nañ xanaa lañ cay gën a jotal rek ndax eh, ñoom eh, ñenn ñu ne am na fu ñu féete te ña fa ne la cëpp di ay taalibe boppam yoo xam dañoo jébbalu ci moom ñenn ñi di ay wëllër yoo xam ne lañ séq ak moom naa sax seen sëriñ ba ñu jébbalu séquñu ko ñoom wala bok serigne bi len jox werd man na mom bi lam sekh lam sekh ak ñom ci yiwu aduna ci gem ko ak yaakaar ak top ko ak di ko ci seen mbir man na sax seen serigne abou gujj mom kon ñooñu ñu ngi len di fàttali bes bi man damay sof rek ñu wax na wax ci turu bok yi man yaakaar na ci sawar lol ndax bok yi ben muy bokki laqarab yi seen bi dajee wax lu wér def ko ci ñu gis ko ndax danaa wax ni ñu tey mën naa ëppale ay bokkam waaye du am leen ëpp kon nawleet mun nawloonte mënut a weesu loolu te sëñ bi jëfe na ko ba tey bañ gis ko kon bokk laqay bi sëñ gisa ngoog muy bokk lislaam bi nag muy innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jooju daf ko dundal ba ñëpp xam ko muy ci gàttal mooy ak uxwatul islaam yi gis nañ fii bu màggal musaan jot ñëpp dañuy ñëw mu wax ak ñoom ci biir wax di la mu daa wax mooy yéen de awma seenu fay suñu borom mi tax ngeen ñëw ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa fay kon kooku ñooñu seen bët diggam leer na diggam ak taalib yi tamit mbokk yi ak wala yi lam waxoon lu leer la mbokk mi tudd na ko léegi ku jëfal sëñ yi taalib yi ñoo la war a njukkal ñëpp xam nañ jëfal na sëñ Tuubaa kon taalib yi seen wàll muy bokki réew mi te daa wax ni sa dëkkandoo bu ko xeeb bu ko yàpp te loolu jëfante woon na bi ñëpp xam ko kon seen bisu ngoog kon daal ku làmb ku dajale woon la ku matale woon la ah digal taali bi ñu am jom am fulla jàpp suñu njàmbur loolu la ñu daal digal ah kon ngoog bis baa ngoog nit nag amul lu dul bisam nit it amul lu dul kam fasanteel kóllëre wala ka ay waajuram fasanteeloon kóllëre ndax lu ñuy laaj bu ëllëgee la lu ñuy laaj bu ëllëgee nag jàpp nañ ne li koy matal ci kaw suuf mooy bu amee bis nga def ci yii may bëgg wax nga dem ca jëf ca ñaan ca sa bopp ñaanal ca ko borom bis ba kuy motul li kóllëre noonu ngay def bis baa ngoog ci ñëpp maasi ñëw motul li kóllëre gi nga xam ne moom la seqoon ak ñoom te kenn ku ne day moom mus sa xaajoo kenn bis bis moom daan daan du ko xaajoo day def lépp noppal la ca kon nag bis baa ngoog ñoom moom mi ko jiite nag woote day la def ak bëggal ñëpp yiw waaye léppam mat na léppam yemb na ndax waajuram waag maama mu defal na ko ko ba noppi waaye nag bëggal na ñëpp xéewal bëggal na ñëpp li nga xam ne moom la bis bi jago ñooñu am ci bu baax a baax bi ci des mooy bokk yi nga xam ne ñoom dañ bokkal yoon wi lu dala ci Maamoor Anta Sali ñoom ñam jaboote ñëpp maam maaram ñu san mboolem mbokki bu soobu yi mbooleem seex si la dala ci Seex Ibra moo njëkk doon baabul muridiina ba ca ka nga xam ne moo mujj jébbalu sëriñ baa ngi leen ko yëgal di leen xamal ne bis bi seen bis la ndax kër gu ci nekk tak man laat ya fa nekk laay woo ndax cheikh bu ne am ngam laat kër gu ne am ngam laat kon ci turu laat yi ñi ngi soññ ñooñu ñëpp doole fedd lil yi nga xam ne moo fi war a xew njëkk màggal gi àllarba ji nga xam ne moo nekk la kaat mboolem koo xam ne sa waajur ci daara ji la nekkoon kay doomam am na lu ñuy organiser fii di ci woo ñëpp ñañ ko bokkal sët yi nga xam tam ñoo sëtoo ci Cheikh Abdou ñi ci di ay góor ak ay jigéen ñoom ñëpp seen daayira boobu ñu ngi koy yëgal mboolem kuñ seqal doon ay sët yu mag yëpp ak bokki taalibe bi yëpp alxamis lay doon ñu ngi ciy woo ñëpp alxamis la 5 waaw incha allah rabbi tabaraka wa taala soxna Maymuna moom Cheikh Abdoul Ahad ak rakkam yi mbokkal Cheikh Abdoul Ahad yëpp nee na ñu ngi soññ mboolem sëti Serigne Touba yu jigéen yi waaye rawatina njabootu Mamor Anta Sali gi waaye mboolem ku ñu bokkal diiney lislaam ñoo xam ne amuñu benn bis lu weesu bis boobu ñu ngi ciy séentu ñëpp Serigne Sidi nag nee mi ngi soññ mboolem umma islam bi bi wul fen Cheikh Abdoul mooy ki nga xam ne moom la yàlla dimbale woon mu jaboote adduna bépp mbooleem tarixa yi kenn ku ci nekk am nga bis booba seq ak Cheikh Abdoul Ahad te waxaloon na boppam ne képp koo xam ne ñëw nga ci man mu xat ba nga jàpp ne dama laa ñàkk yite ñaan naa la nga atte ma ci la njëkk a seq maak yow ku ko seq ku ko xalaat danga xam ne sa digganteeg Cheikh Abdoul Ahad lu rafet la woon bis bi gaaw lay doon di ñaar fukki fan ak ñett ci weeru wolof di le 7 juillet di ci atum mille 2018 Serigne Sidi nag na mu ko daan defe rek la mu waxoon ne daal képp koo xam ne ñëw nga ci man loo am ci man ñaan naa bu déwénee nga am lu ko ëpp ndax tëjuwuma kenn nëbbuwuma kenn maa ngi toog fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad di fi xaar Cheikh Abdoul Ahad waaye di fi liggéeyal sëñ Touba di séntu murid yëpp nag di séntu jullit yëpp di séntu réew mépp di ñaan képp ku fi teew yal na yàlla faj sa aajo ci barkeb Cheikhuna Ahmadul Khadim ci barkeb Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu